Euh, di la nuyu yéen journaliste yi bu baax a baax a baax Sarko bu Mbàkke mhm. waaw ndaje bi de du leen bu ñu xoolee promoteur bi wax na ci lu baree baree bari muy ku ñu jàppale la ñu bëgg mais jàppale bi du leen lu dul champion yi fi nekk yëpp kenn ku nekk yaa ngi ci dara waaw même bu làmb tëjoon it du tee nga ne ci dara mais li tax ñu taalal loxo mooy ñun sport bi lañu ñu am amuñu fenn fruit Mbàkke tey jii ku fi mën a nekk boo xoolee produit bi fi nekk nii am na bu fi njëkk jaar te li ñu bañ mooy mujj puso bi mu réer moo tax champion bu mag bi ñu topp ci ginnaaw muy doomu Mbàkke mu xool idée bu rafet bi mu def ko tey soo xoolee saa yu jógee fii nii dem Dakar wala Boy Niang wala keneen ak keneen da ngay dégg ñu ni doomu Mbàkke wala Boy Niang bu Mbàkke kon képp koo xamante ni yaa ngi ci gox bi nekk Mbàkke ñu ngi lay taalal loxo nga jàppale champion yi ndax mënuñu am lu gën a rëy loolu beneen bi fu ñu mën di dem Mbàkke la ñuy taalal suñu loxo chaque jour di présenté wu chaque jour li ñu doon xeebuñu ko ndax ñun Mbàkke lañu am beneen mooy ay ndaanaan ñoo fi nekk li fi jaaroon bu buñ jàppalee ñu fi nekk nii den gis lu gën a rëy loolu ñun li ñu gis ci biti ndaanaan yi nekk foofu suñu bët jël na leen ndax gëm nañ ni bu ñu tëjee ci benn tàkkusaan dinañ gis lu rëy rëy dinañ xam ne doomu Mbàkke yi ay champion ngi foofu mais dafa am loo xamante ne dafa metti ay ndaw lañ am na lu nekk suñu ginnaaw yaakaar ñu te bu ñu jógee ñu jóg bu ñu waxee ñu dégg c'est normal nag ñu taxaw wax ne nii lañ bëgg ak lii lañ bëgg bëgg nañ kuñ ci jàppale ndax it boo xoolee ndaanaan yi fi nekk nii ci ginnaaw yëpp waruñu mën a toog wax mais suñu jëlee kaado gi joxuñu ko peut-être xaj na dañoo jàpp ne rek euh, ñoo mën a toog ci kanam wax mais ñu ñu ko dàq rek moo nekk ci ginnaaw waaye ñu ngi bàyyiloo xel képp koo xamante ne rek yaa ngi mbàkke champion yi ñu ngi lay bàyyiloo xel nga jàpp ci ndax stade yi bu fekk yegg na ak lu ñu ci mën a jàppale promoteurs yi mbëri la jàppale ay doomu mbàkke rek ñoo fi nekk te ñu fi nekk ñëpp amuñ leen gox bi champion yi fi nekk yëpp bu ñu génnee mu neex mbooloo moo leen di topp kon ñu ngi taalal ñëpp loxo ñu bàyyi xel loolu. dañoo toll foo xamante ni phase boo xam ne dafa jot nag ñu taxaw ñu mbëri Mbàkke yi wane suñu bopp wane ni ñun nekk nañ ay doomu aadama yoo xam ne am na lu nekk suñu bopp. parce que nag mënoo nekk ci benn département di dund sport fuñ déggee drapo Mbàkke ñu tudd ko ci làmb yow yaa tax ñu koy tudd ak say moroom te autorités yi ne ci biir dëkk ba jàppale leen nañ la war a jàppale te yeneen sport ñi ngi fi. mën naa wax autorité yeneen sport yi lañ gën a favoriser que làmb te dañ làmb mooy suñ cosaan mooy suñ sport national waruñ gën a fonk dara ci làmb ñuy tàllal loxo nag bépp autorité boo xamante ni yaa ngi ci biir Mbàkke Bawol di ci jiital monsieur le maire ak DG Gallo Ba ndax ñooñu bu ma leen tuddee rek mooy tudd naa autorité yëpp naam nag doomu Mbàkke mi ngi am combat di génn di dem dakaar monsieur le maire di ko jàppale galo Ba di ko jàppale mais am naa ay rakk wala ay frères yoo xam ñi ngi sama ginnaaw amuñ loolu te làmb ki nga yaakaar ni mooy doon champion ka ca ginnaaw mën na koo ñëw romb ko xamuñ kan mooy doon champion jàppale du yam ci kenn boole ko suñ làmbu département fii nii dafa xaw a sooxe parce que dañ doon am lu ma dix journées chaque année mais moment bi mënatu ñoo am deux journées avant ñuy wax waxu problème mu stade dañ doon am ay dix journées booy fii ñëpp dañ doon bëre bëre waat ba da nga ciy jox booy avance mu ne la xaaral mais mënatuñ ko am lu tax autorités yi jàppuñ ci làmb ji parce que koo ci dem di ko tuddee drapeau pour làmb mu lay xaarloo te kuñ ci tuddee finalu match ku meer sax wala jaune nga dem te ñun la bien sûr dama bëgg ñu delloo si waat seen xel xam ni ñun làmb ñoo ko moom te tey ñun fi ñuy yóbbu drapeau Mbàkke bari na ñoo xam nuñ ko fa yóbbu tey nawetaan mën na yem ci biir dëkk bi mais doomu Mbàkke day dem taxaw Ibamar wala mu taxaw amitié àdduna bépp di ko seetaan bu ñëwee doomu Mbacké rek sa xol war naa sedd wala ñu ni Boy Niang bu Mbacké wala Zarko bu Mbacké parce que day défendre cleurs kon nañu autorité yi gën a jàppale côté CDG bi ñu jàppale leen parce que paa yi dañ ay moyens ñi nga ñi nga xam ñoo gérer CDG bi dañu manqué ay moyens de trop Mbacké rek ngay gis arbitre bu taxaw di arbitrer sol jiinam ak t-shirtam bu ko neex arbitre yoo xam ne amuñ sax équipement man su ma dee seetaan image damay am lu ma metti Mbàkke ngay gis CDG boo xamante nii amuñ dara dara dara dara dara loo xamante dinañ ne la lii autorité moo ñu ko jàppalee pour CDG bi te ñuy def lu dul jeex ci nawetaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon dafa jot nag autorité yi geestu làmb ñu ngi leen di sant nag ndax doomu aadama lu mu yëkkati ci alalam jox la ko sante ko ko gërëme ko na xamoo nu mu def ba am ko waaye tamit ñoom ñoo taxaw ni ñooy autorité ville bi kon nag nañ geestu làmb xam ne li ñu leen di demandé nii seen wareef la tey man benn autorité du ni doomu Mbàkke mos na ñëw ci man ni ma may ma 5000 parce que soxloo ma ko sama dignité mayuma ko mais saa bu ma ñëwee rek ni la jox ma rek dama ñëw dama am bis mbooloo topp sama ginnaaw ma war leen a décrocher yóbbu leen ba Dakar ku ne xam na ni jóge Mbàkke dem ba Dakar bëri jiwaat ñibbisi dafa metti kon bu lay demandé loolu da nga war a tijji say buntu yombalal ko mais léeg des fois da nga siy woo autorité mu lay bañ a jël wala mu lay nëbbatu loolu dafa war a jeex. ñu ngi sensibiliser comme ni ko ñëpp di defee tey lii ngay gis association la boo xamante ne ni dañ koy taxawal mi ngi doogay juddu département bi mbër yi fi nekk yëpp bëgg nañ suñ jugee fii incha allahu rabbi ñu wutal association bi ay këyit wutal ko récépissé mu valable comme tout le monde ñuy am situation ci maire bi comme ni ko ñëpp di amee teg suñ lépp ci yoon groupe whatsapp bi ñu nekk tamit ñu ngi sensibiliser gars yi chaque instant man mii di wax ak yow. sama koñ bi mbas mi amee jënd naa samay masque booy ñaar def na ko Yékini mii keneen ak keneen ñu distribué ko may ko ñu ko war a may wut suñuy gel mais nag boobu dafa fekk association bi lii nii juddoogul mais à part de maintenant lépp lu mu laaj incha allahu bi dañ ci nekk te dañ ne ci combat pour tout le monde mu jugee fi parce que instant bi jot na nag ñu dellu si suñu waar parce que toog bi dafa yàgg plus un an et quelque booy xool dafa métti te yaakaaroo lu dul làmb dafa métti trop. CNG bi suñuy papa rek ñoo ko yor mais ku dëgg wax leneen. taxawaay bi dafa des am na ñu am compétence ci seen biir mais am na ñu des parce que làmb nekkul lu ñuy jeexantalu mën nga ma mag man mais mën naa la ëpp xam-xam ci làmb fuuf ndax li ma def ci làmb doo ko ci def mën naa la gis nag ngay organiser ak jiite ma ci làmb mais ma ëpp la ci xam-xam ñoom nañuy retourner ñun di ñu laaj ñu leen di wax di partager ak ñoom ñun li ñu yor parce que làmb dëkk bi dafa des te dafa war a avancer dem ca kanam parce que tamit Mbàkke région de Diourbel moo nekkoon dëkk boo xamante ni mooy deuxième ci làmb boo xaar dakaar moom ngay wax instant yi de Diourbel da ngay wax Kaolack mooy deuxième Kees mooy troisième dañoo ñëw quatrième position kon làmb ji des na muy Diourbel muy Mbacké département bi CDG bu Mbacké boo demoon amuñ 16 foo xam ne mooy seen base amuñ dara ci matériel lo saaku sax amuñ ko pour enceinte saaku yi normal dafa des trop. mais jafe-jafe yi dafa xaw a dafa xaw dafa xaw a bëri ba mënuñu daanaka pour ñu lim lépp day xaw a jafe parce que boo xoolee ba waree tëgg fii làmb dañoo doon am problème mu stade xam nga sécurité bi ngay jël da doon fay loo xamante ni day metti xam nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day metti lool ci programme làmb te li daan waral euh, fay sécurité bi di metti ak yooyu yëpp xëy na lépp daa nekkoon ci problème mu stade bi tax mu daan jafe. waaye yooyu yëpp dañuy ñi ciy soññee rek ngir ñu ñëwaat jàppalewaat làmb taxawul làmb surtout suñu département bii ñu dëkk ñun waaw di wax ne booy yi dañoo yaakaaroon làmb doon daj lu nekk ngir làmb làmb daan am ñu ci daan dimbali seen ay waajur di ci dimbali ñu nekk seen ginnaaw dem ba làmb toog nañ presque léegi mu mat un an et quelque parce que làmb amul àll bi tëggul département bi ci fii Mbàkke tëggul kon loolu day metti ci côté boobu ñu wax ne suñ amee jàppale yu ñu leen mën a taxawu day baax pour ñu jàppale leen ci parce que ñi ngi am na ñoo xam ne ñu ngi xëy ñu ngi wàcc ñu ngi def seen poos mais ku xam mbir moo xam ne da nga am ci yaakaar mu taxaw ku ne xam ne dina am loo xam koy soxla bu mënee nekk day baax su mënta nekkee li nga xam ne ñun moom lañ amoon muy làmb te daakaaroon ko ñu jàppale ñu gaaw balaa lii fi nekk di ju fi jóge li ñu war a dëgmalaat mu gaaw pare ñu mën caa dem parce que ñun problème boobu mooy suñu problème première bi nga xam ne bëgg nañu dimbali ñu ci muy stade bi pare bañ inauguré ko ci jàmm di fa dugal làmb ji bu ko defee situation bi dina am loo xam ne lu bëri dina ci mën a changer incha allah.